Fafa TV. rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala asrafil mursalin nabiyina al-mabuuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi gannaaw bi ñu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, sunu xutba tey insha allah ñu ngi ko jëmale ci xereñ gi suñ borom subhanahu wa taala def diggante sabab ak jeexit waaye na xereñ googu gën naa feeñ lool ci siècle bu mujj bii nga xam ne ñun moom lañuy dund euh, diggante sabab ak jeexit luñ ci jublu mooy diggante sabab bu mel ni jaamu yàlla subhanahu wa taala ak li muy am ci ay jeexit yu rafet ci dund askan doomu aadama waaye it sabab bu mel ni ñàkk jàmm yàlla subhanahu wa taala ak jeexit eh, yu raglu yi muy def ci biir société doomu aadama yi loolu suñ borom subhanahu wa taala da ko tëral noppi ca bëgg nag gum ñu bëgg ak yërmande jum am ci ñun moo tax mu andil ñu njaamu yàlla gi defar dund forataal ko ci ñun wan ñu sax ne moo tax ma sàkk leen Iblis it loolu la xam xam na ne yoonu njaamu yàlla mooy yoonu texe ci doomu aadama bu ci jaaree àddunaam baax àllaaxiram baax moo tax lépp lu man pour soril nit ki jaamu yàlla dana ko def bu nu xoolee ci siècle bi liy liggéey pour soril doomu aadama yoonu jaamu yàlla bari na lool waaye li ci gën fis mooy fexe ba soril nit ki boromam subhanahu wa taala ak soppi màndargay diine yi soppi itam ndigley diine yi remplacer ko par yeneeni màndarga ak yeneeni ndigle ndax xam na ne ker bu ndigley borom bi tabaraka wa taala fare ndigley seytaane mooy taxaw ndax moom faawu ndigle taxaw ker bu yii soree rek yee daal di jege te ker bu yee jegee ba samp nit day daal di day daal doon noonu boppam moo tax nga gis tey nit noonoo lool boppam noonoo lool mbokkam nit nag ci ñaari façon yi mu am mooy nit ki yor kàddu te am doole ak nit ki yor alal kooku benn façon la ak nit ki néew doole seytaane fexe na ba ñoom ñaar ñoo ñépp kenn ku ci nekk di sawar ci sori boromam subhanahu wa taala ki néew doole fu ko ki am doole féq jëmale ci xeetu mooy yàlla mu topp ko ca moo dal tey société yi nga xam ne ñooy dund ci kaw suuf ñu nekk ci kanam société yi lënkaloog seytaan jëmmal rëddu seytaan bi maanaa yoonu seytaan jaar ca di ca jaarloo askan yi du Sénégal rek de waaye jaar ca di ca jaarloo askani doom aadama yi ci àdduna bi lépp ba takkatoo def ay mbootaay à l'échelle mondiale tëral ay tër yoo xam ne dañ naan na ci àdduna bi yépp jaar te tër yooye boo ko xoolee biiram ak bitim lépp lu muy woote soril nit yàlla subhanahu wa taala ker bu nit soree boromam jaar ci yoon yooyu bu boobaa seytaan day daal di am bëgg-bëggam pour loolu am nag yan yoon la tëral nit ki war koo xam bu baax jël ca responsabilité bi ci jiitu mooy songu nit yi diina yi ak di leen doyadal ak di leen tuutal comme ni mu amee ci waxtu wi nga xam ne dañuy xëy xëy dégg na ab imaam wala ab jàngalekatu alquran songu nañ ko def nañ ko nii ak nële loolu nag ay jeexit la am na sabab yu ko sabab waxoon nañ fii ci àjjuma ji paase ne kenn ku nekk ci ñun na considéré boppam comme sabab ci jeexit yii di am ci dund bi duñ ci dellu siwaat bokk na ca màbbu famille màbbu njaboot ci yoon wi ko suñu borom subhaanahu wa tabaxee woon moo tax ñu tëral ay tër yoo xam ne dafay yombal ak mooy yàlla ba nit ki dootul aajowoo sax samp euh, kër walla denc soxna jigéen ji dootu aajowoo tënku ci benn boroom kër loolu bu ñu xoolee ci siècle bi seytaan def na ci lu bari moo tax depuis 1896 ay tër ñu tëral ko ca Europe xëy xëy ne daganal nañ daganal nañ li ñuy tuddee caaxaan njaaloo tër yooyu dañ xëy xëy rek gis ko fii gannaaw bu ñu amee l'indépendance ay jullit yu takkatoo nekki mbooloo am état xëy xëy ne daganal nañ la yàlla xaramaloon mooy daganal nañ njaaloo ku am fukki at ak juróom-benn wala fukki at ak juróom-ñett su ko neexee mën na cee def dundam te mbokk yi ñun ñii la. loolu bokk na ci yi eh, màndarga yi nga xam ne day day wane ne ñu ngi ci mujjug mujjug àdduna ndaxam nag faawu bis dana ñëw tëri caaxaan yëpp dafay jóg. moo tax jullit bi warta am mukk yox-yoxi wala yonjax ci li di liggéey pour tëri seytaane yi nga xam ne lu yàlla xaraamaloon mu ñëw daganal ko pour mu jógee fi kooku ab jullit daf ko war a boole ci pas-pasam ci samimu imaanihi gëm ne liggéey pour liy jóge fi wareefam la ci niveau bi mu am nag niveau bi nga am mën na tollook lan bañ ko ci sa xol bañ a koy wootee doo leen jàppale ci dara wala nga di ko wax ci saw làmmiñ di ko dénoncé ak lu la ca mën a fekk fekk la ca ker bu yàlla demee ba jox la pouvoir nga dindi ko yooyu mooy ñetti niveau yi nga xam ne yow jullit bi faw nga am ci boo ci tollu bi gën tuuti nag nga xam ne mooy bañ ko ci sa xol mbir boo ko bañee ci sa xol doo ko jox benn forme ci forme jàppale doo wuy ji ka koy woote <clears throat> bu laaj yow sànni doo ko sànnil. bu laajee ndimbal doo ko dimbale bu wootee meeting doo ca dem loolu mooy forme bi gën a tuuti nga xam ne bañ nga ko te yàlla tax mbokk yi <clears throat> li li tax suñ borom binduñu mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala jaamu yàlla googu nag moom la ñuy foye tey bu nu xoolee famille wutal nañ ko ay tër yoo xam ne daanaka nangu nañ xale bi ci loxol way jur wi wutal nañ ko ay loi yoo xam ne day may xale bi pouvoir bu waajuram amut jël police ak gendarmerie teg ko ci gannaawam facilital ko lépp luy xeetu bañ ak rébellion loolu rek dayoon na pour xale bi mën a rebeller euh, dem ci yoonu ba bànneexu bakkan moo waral nga gis xale yi tey bu ñu bañee jàng bañ a jaar ci yoon wi wi seen way jur yi gërëm way jur yi duñ am sañ-sañu yëkkati bant teg ko ci seen yaram ndax boo yëkkatee benn bant teg ko ci seen yaram yoon wi leen di aar dana ñëw jëflanteeg yow way jur wi ci façon bu brutal te ndaxam day suñ borom maye woon na loolu xale bi bu demee ba tànn yoonu yàqute suñ borom noonu na na ngeen leen di bàcc bàccal bàcc bàccal goo xam ne du leen lor ngir lan soowe seen dund ndox seen digganteeg topp seetaan tër yi ngeen tëral nag yéen tey ku ci yëkkati bant bàcc bàccal xale yoon dal ci kawam mën na caa tëdd kaso loolu lu jar a bàyyi xel la ci sëriñ daara yi jàngale ñoo ko tëral bàyyi ci xel jéng bi it noonu daara yi bu njëkk ku daa ku demoon bëtt daan nañ la yaree jéng ngir la ngir ñaari yëf benn bi mooy bañ xale yi daw comme yow waaye itam ñaareel bi mooy xale yi yëg nekkat ah bu ñu dawee danañ ñu def nii ñu def kii yaakaar naa loolu lu positif la kon moom danañ ko garder mu jàng waaye danañ garder waale xale yi en même temps ñu jàng te amuñu woon benn moyen buñ ko defee lu dul jéng téye téye lañ ciy jublu woon rek ndax amuñu tabax yu ñu leen mën a téye tëj buntu ya xool daara jee nga xam ne moom lañu wane ca <coughs> njaañ xam nga ne daara jooja néew doole nga fa ay néegi sàkket laa fa gis sàkket boo fa dugalee xale tëj ko fa bu dee da koy bënn jàll kon man jàpp naa ne kooka loolaa ko yóbbee muy jéng xale ya waaye du bëgg a jéng du coxor bu ko defee nag loola saa yoo ko defee yow way jur bi wala yow jàngalekatub alquran bi yoon wi nga tànnal sa bopp tëralal ko sa bopp dana ñëw doya dal la ci sa biir njaboot jéng la ci kanam xale boobu jéngi xale bi yow mu jéng la libéré xale bi yow mu tëj la yooyu yëpp nag yoon yi ngeen tëral moo ko nangu waaw yoon yi ngeen tëral moo ko nangu moo tax coow li bari na lool waaye am na fu mu ëppee solo mooy ñu xelaat ci sabab yi bala ñoo xelaat ci jeexit yi li sabab lii lan la ñun la ak stër yiñ tànn kon combat bi dëgg foofu la ab jullit warta am complexe ci ne man lii laa gëm lii laay militeel lan moo may sañ-sañ ki jàngee ci dégol ñibbi si am sañ-sañ bu toll ni man lii laa gëm li dégol tëral laa gëm ci laay milité yow mi jàngee ci daara ji ci madrasatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu am dictature guñ teg ci sa kaw ne la déedéet li nga gëm doo ko fi waxee doo ko doo ci wootee damay wax ne jëmmi dictature foofu la mën a yem benn jullit waru ko nangu benn jullit warta am complexe d'infériorité ba tax mu làq pas-pasam ñu koy lor feek jullit baa ngi nangu loolu di ko nangul diinaam na na ko wér ne mu ngi lor diinaam ci gàttal lu dal diina tey ñàkk dellu ca sabab ya ko waral la loolu dong moo doonoon xutba gi kon ñoo tooñ suñ bopp suñ borom day wax léegoo léeg ne wa ma zalamnahum walakin kaanu anfusahum yadlimuun mu ne man yàlla tooñu ma kenn yow yaay tooñ sa bopp ba mu ñu tëralee yoon wi gën la wàccoog ñun la ca des lan la jël jëriñu ñàkk jël loru te loolu mooy laa ilaha illa jël jëriñu tedd ad tedd àdduna ak àllaaxira ñàkk koo jël gis ko fii ci àdduna ñu toroxal la di toroxal sa njaboot dara gënt a nekk toroxtaande tey ci xalif général bu mu mën a doon nag laay wax xalif général yi yépp dara gënt a nekk toroxtaande ci ñoom ñu jël seeni njaboot di leen maltraité di leen toroxal di tëj ci loo xam ne du dëgg te mënuñ ci dara kon na leen wér ne loola ñuy def ñu ngi koy def bépp xalif général kañ jéng tey ñépp lañ jéng kañ toroxal tey ñépp lañ toroxal bu fi rasulullahi nekkoon sallallahu alayhi wasallam dañuy wax ne moom lañ njëkk a doxe dal waaye nag nekkatu fi tey yéen a fi ne kon mbokk yi nañ xalaataat ci sabab yi ngir mën a dindi jeexit yi hada waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi Fafa TV